asalaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaam ci Sen Sport li nga xamante ne mooy qualification coupe du nga xamante ne ñaari jogante képp a dox seen digganteek moom ñu a amal seen match bu njëkk tey ji seen digganteek ñi di waa Haïti xam ne bu ñu ci amee ndam dañuy janoo ak Chili bu ñu jàkkaarloo ak Chili nag képp ku ci génn mooy daal di qualifié ci li nga xamante ne mooy coupe du monde boobu maanaam barrage yi moom la ñuy amal jamono bi Sénégal Haïti lay footballal tey ji ci xaaju guddi lay doon ak ñun ndax ñoom jamono ñu ngi foofu la ca Nouvelle-Zélande voilà dëkk la boo xam ne sori na lool léegi nag li nga xamante ni mooy jogante gi ñu ngi ko war a amal ci xaaju guddi ci ñu suñu heure maanaam benn waxtu ci guddi lay doon une heure de matin ci la ñu joué jogante googu comme ni leen ko waxee képp ku ci génn dina jouer contre Chili bu ñu ci amee ndam dal di qualifié ci li nga xamante ni mooy coupe du monde boobu ñu jàkkleel jigéen yi Cristiano Ronaldo moom tey jii dafa amal li nga xamante ni mooy ñaari passe décisif kon double passe décisif la tey jii ci match boo xam ne ñoom amoon ko Al nasr bu ngeen fàttale ko bu yàggul dara rek amoon na li ñu tuddee quadruplé maanaam lu toll ci ñeent bal ci benn match tey jii mu amal ñaari passe décisif voilà kon mu mel ni ndorteelam foofu la ci Al dox na ñoom ñoo ñoo am victoire ñaari bal ci benn ñaari bal yëpp moo ko dal di joxe kon match yi nga xam ne joué na ko Al Nassr na ci lu ci cinq buts ak deux passes décisives Cristiano Ronaldo gannaaw lolu ki nga xamanteni nak moy Joao Felix ak desam fofu la ci Chelsea kayiti xibaar bi la nañu ne Chelsea ñu ko wékk ci ki nga xamanteni moy Mason Mount Mason Mount dal mom mi nga xamne ba fi ñu waxe mom ak Chelsea guñu ci walum jox ko li nga xamne moy contrat bi taxna fa ñu ne ñom ya, blues yi bëgg nañu ko saraxé li ñu bëgg daal moy jox Atletico de Madrid ki nga xamanteni moy Mason Mount wala su ko défé luñ ci tek ci copar ñu tek ko ci doog jot ci ki nga xamanteni moy Joao Felix bi nga xamne Chelsea amana bëgg nañu moo dal di dess fofu ta xaaliss bi kat dafa cher njëkk gu cher la Atletico di laaj ngir dal di koy bay bu dem voilà Chelsea football club xam nañu ne ki nga xamne moy mooy Mason bu fekkente ni signé wu contrat bu Bes. bu saison bi jexé Amna chance ngir dal di fay joggé amna club yu koy top bokku na ci Liverpool jamono yi nak Chelsea seen pexé moy xol ndax Atletico bëgg nañu ko bu fekkente ne lool amna ñu dal di def li ñuy tuddé dugalante Chelsea gogol lañuy dess seen joueur bi nga xamne dañ ko sañ signé bu yagul dara ñu wax Santos mom nak ba fi ñuy waxee kenn gisagul ko mu jouer ak équipe bi liko waral moy li ñu tuddé wak pamet manam eh, li nga xamanteni moy mooy wo nga xamne mokoy moo mu wara jouer ci English Premier League bi moom la jotawul moom la jotul booba léegi ñoo ngi daw waaye nee nañu daal English euh, Premier League bi joxuñu ko li nga xamante mooy Wokpamet boobu boobu voilà jamono bi moom mënagul jeu ci équipe bu Chelsea bi ndax kat amagul li nga xamante ne mooy këyit boobu nga xam ne ñu ngi koy sàkku ci li nga xamante ni mooy kilifa yi English Premier League bi voilà Barcelone ñoom daal dinañuy unveil ki nga xamante ni moom la ñuy wax dégg Araujo voilà Julián Araujo bi nga xam ne ab latéral droite la ab mexicain jógee foofu la ca LA Galaxy nekk ci dégg nga maam euh, Amérique voilà moom nag daal dinay ñëw tey jii daal dinañu ko présenté comme joueur Barcelone nee nañu de signé na contrat wu ñetti at ak genn wàll voilà moom kii di Julián Araujo bi nga xam ne waxoon nañ leen fi ay fan ci ginnaaw ci ne Barça dañu ko bëggoon signé fekk waxtu bi daal di passé léegi nag yéeg nañu wàcc ba daal di jot seen match yi di ñëw dina jàppandi sax football moom ki nga xam ne mooy Araujo nekk ab latéral latéral droite José Mourinho ñu ngi koy tudd ci candidat yi nga xam ne war nañu mën a jël club boobu di Paris Saint-Germain kayit di xibaar yi biral nañu ne daal saison bi su jeexee Paris Saint-Germain bu ñu amul chance dëgg dinañu tab ki nga xamante ne mooy José Mourinho muy seen ab entraîneur ci at yi ñu dëkk mën José Mourinho nag jamono bi mooy tàggat AS Roma waaye nag entraîneur la bu expérimenté am na club yu mag yu mu jot a jaar yoo xam ne daal dina fay defi jaloore bokk na Chelsea Football Club voilà gi nga xamante ni bi mu fa ñëwee gagné na leen dellu suwaatee gagné na leen ko voilà dal di def ay jaloore foofu la ci Angleterre rawatina équipe bu mel ni Manchester United jaar na tam ci Italie ci équipe bu mel ni Inter de Milan gagné na fa Scudetto muy championnat bu Italie gagné na fa li nga xamante mooy Ligue des Champions voilà moom maanaam euh, entraîneur la bu mag boo xamante ni daal compétition yu mag yi mat na ko moo tax jamono bi Paris Saint-Germain nee bëgg nañu ko bu ñu sukkas na ko nag ci kayiti xibaar yi ki nga xamante ni mooy Toni Kroos moom jamono bi ñu ngi laam-laame ak bokkam ci match bi nga xam ne Real Madrid war nañu ko am seen diggante ak Liverpool ci wàllum Ligue des Champions filee ki fan yu néew moom nag bokkul sax de ci match bi nga xam ne Real Madrid war nañu ko am ci samedi bile voilà ci joŋante gi war a dox seen diggante ak Osasuna Toni Kroos bokkul ci bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar te it am nañu sikk sàkk ndax dana mën a bokk ci jogante gi ñu war a am dégg maam ñoom waa Real seen diggante ak Liverpool teewul bu ñu xoolee ci jogante yi nga xam ne ñoom war nañu ko am ci weekend bi am na ay joueurs yoo xamante ni retour lañu ku ci ni Courtois dellu na bokk na ci groupe bi waaye ku ci ni Lucas Vazquez moom dellu waat na Eden Hazard moom itam bokk na ci groupe boobu nga xam ne war nañu football ci weekend bi waaye itam ki nga xam ne mooy Karim Benzema ak Toni Kroos moom ñëwuñu ndax ñoom ñaar ñëpp jamono bi dañoo ami blessure wala dañoo gaañu maanaam a bokk a dox seen diggante ak xibaar gay continuer si seen sport 221 the best sport news channel